xuloo saaga ak tamante la ñu nemmeeku ci langue politique yi ci fan yi ñu génn moo xam ci opposition bi la wala ci pouvoir bi la kaddu président Abdoulaye Wade yi du ko weddi koro ba muy jàkkaarloo xartu Karim Wade yi kàddu yi mu jégle loon Macky Sall demoon na ba bàyyi Macky Sall di wax ci ay waajuram yamul foofu ndax président Abdoulaye Wade tam na sax Macky Sall te du moom kase yëkkati yooyu kàddu am na keneen ko fi nekkoon kilifa jiite woon ministère de la justice di maître Amadou Sall yëkkati kàddu yu ñaaw jàmale ko ci président Macky Sall kàddu yooyu sax ñoo ko tee ci nungu siin ba léegi kàddu yoo xamante ni ñaaw la lool ba procureur de la république jàpp ne kii dafa xotti war may njiitu réew mi mu mel ne kàddu yu ñaaw yee xasante tey dafa xew ndax keneen koo xamante ni ci état bi la bokk doon deuxième personnalité de l' état di Moustapha Niass yëkkati na kàddu yu ñaaw yoo xam ne saagaa ci ëpp ak xaste jëgle ko ndawu parteem yi koro bi nga xam ne mi ngi janoog ñoom ci wàllu candidature am koo xamante ni yëkkati na yeneen kàddu yu ñaaw jëgle ko président Abdoulaye Wade mooy madame Aminata Tall di troisième personnalité de l'État ndaw parti démocrate sénégalais yi meroon nañ ci lool ba Mouhamed Massaly daal di yëkkati ay tontu jagleel ko ndaw si yooyu tontu moo jàppalu Massaly ci biir kaso yu ba tey bu mag ji di saagante ak xaste ku nekk di waxante sa moroom la nga ko xamal wala la nga ko yaakaaral laaj bi samp mooy ñi de kilifa yoo xam dañuy wootee kilifa yi politique ku nekk bokk ci parti boo xam ne yaa ngi ndamoo ne Sénégal gi gën yaa ko mën a tabax ndax yi le kàddu la ñu mën a tabaxee Sénégal gi gën lu mu ci mën di am daal débat politique bi suufi na lool

amul teggin amul xorma amul xaste euh, amul amul respect ndax jotul ñi nga xamante ne nag ñoo ndànk diine ji taxaw wax ak ñoom orienté leen wax leen li nga xamante ne mooy bëgg-bëggu islam. ok alhamdulilah Mor wala Mamour Fall oustaz Mamour am na nga baal ma rek ma nuyu suñu mbokk bi ñu bokkal ak euh, sëy ak mbooloom waa réew mi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan. damaa ubbee sama wax léegi ci alquran ñaareelu wax ji ma ubbee ko waxu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu di firndeel ñaar mooy ñi ne ci réew mi ak lu mën a am ay jullit lañu même bu ñu dul ay jullit it ñoo bokk niti gi am na loo xam ne rek nit ci boppam nanguwu ko bu dee ci diine ji yàlla subhaanahu wa taala moo ñu moom moo ñu sàkk am lum ñu def loo te loolu pour mu am foog jàmm am lim ñu def loo mooy jaamu yàlla ndax moo tax mu indi ñu ci kaw suuf jaamu yàlla pour mu am ni mu mel ni yàlla bëgg foog jàmm am dal am kóolute am loolu soog a mën a am su ko defee yàlla subhaanahu wa taala dafay wax ci alquran ni ana kan mooy ki gën a rafet rafetle wax kuy woote jëme ci yàlla ndax sa vingt sur 24 yëpp ci loolu nga ko war a jeexal waroo wax wax joo xam ne bu jibee ñëpp dar seen nopp en tant que jullit rawatina nag boo yeggee ci yenn âge loolu warees na ko mën a moytu jullit war naa moytandiku yëkkati fitna jurit mooy lan mooy tondeku def lépp lo xamne day laal wor may ñeneen yàlla subhanahu wa taala mo wax lolu waxat leneen xamna buñ ci yexé dina dina gëna gën a leer waaye ci laaya bi suratul fussilat yàlla di wax ni wa man ahsanu qawlan mimman jaa ila allah wa amila salihan kon wax ji dafa am lu koy firndel te moy li ngay jëf da ngay wax lu baax boole kook di def lu baax ba pare nag foo toll di askanoo jullit ñi di wane ne man fu ma tollu bés bu ne damay bokk ci ñuy def lu baax di ko wax di dox jàmm di wax jàmm. kon wax jooju ci kii def en tant que nit laa la wax. Mm-hmm. en tant que nit ku nite. Mm-hmm. ku nite ci boppam. niteem demut tàggoowul ak sagoom amul droit wax yenn wax yi. Mm-hmm. loolu waxuma la ci politique bu may wax ci cadre bi may waxee maanaam dafa laaj ñépp lay waxal moo xam politicien bi moo xam jullit bi moo xam lépp fi ma leen di woo mooy li yàlla waxal boppam boo koy xool itam ci vision boobu nga koy xool xam ne ñun ñëpp nañu bokk ànd déglu ndax ñun ñëpp ñoo maase barab bi barab mimbar la boo xam ne bu imam bi taxawee di xutba donte li muy wax neexu la it waaye déglu ko danga am droit déglu ko te bàyyi ci xel ndax amul sañ-sañ wax li nga xam ne moom la xalaat wala li mu bëgg waaye li muy wax yàllaa ko wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom moo ko wax kon yàlla nee na am ana kan mooy ki gën a rafet rafetle wax kuy woote jëme ci yàlla ba pare di jëf lu baax ba pare askanale boppam ci jullit ñi maanaam di askanale boppam du tooñ du jalgati ci waxam ak ci jëfam waaye itam du tooñ kenn day jàmmal ñëpp seet ak ñëpp jàmm boobu benn la loolu laa soxla woon dafa toll fu am solo. mu ne ki nga xamante ni day woote. jëme ci yàlla ci waxam ci jëfam lépp du wuute ci ay teggin yéen ñi nga xamante ni yooyu def politique yëkkati kàddu yu ñaaw di ko jox xalante ban jàngat nga ciy def. di la remercier bu baax si question bi di dafa naa oustaz. dafa tënk wax bi. Oh. nga affaire bi du affaire politique affaire nit la. ak doomu aadama ak yar ak tekki politik ñu koy def ay jullit na jullit la président république jullit la keneen keneen même su nekkul ay jullit sax am na gëm-gëm bu nu am donc lu am solo mooy dëkk bi dafa tollu jamono boo xam ne danoo soxla dal soxla di waxante yéenante lu baax ndax dafa naa nit loo bëgg loo yéenewul sa bopp mënoo ko mënoo ko yéene sa morom. donc foofu dama toll foo xam ne xam nga man tey waxtaan bi il faut jël ko ak responsabilité. parce que lu toll ne njiitu réew parce que nit yi il faut ñu delloo si seen xel si yàlla xëy na man sama jàng soriwul sori boobu waaye xam naa ne yàlla dafa soxla lu mu teg si jaam jaam bi nangu ko. te yàlla lan la teg njiit yàllaa koy fal. yàlla moo jël président de la république ne ko fii kenn judduwul ak président de la république si jëwam hmm. ñu bind ko déedéet da ngay dam ba jamono yàlla ne man kii laa jël teg ko fi mu jiite leen nag noonu ànd ak dal liggéey lu ustaas lu yéenante jàmm hmm. ndax man tey élément bi ñu teg man dafa am benn jàngat ma si jàngat mooy kenn tudd si benn yoon sunu njiitu réew ñu ne wax na wax bu ñaaw jëf na jëf bu ñaaw doxalin doxalin bu ñaaw. mais ay mais njabootam ñu ngi koy def jëme ci mais mais xam nga njaboot dafa yaatu. Mhm. waaye yow tànk yaa ngi doxalin doxalu kilifa. sa njaboot suñ si euh, adduwul si saa si. Mhm. dina leen yey pour beneen yoon. mais deuxième personnalité ah, le chroniqueur xam nga man loolu laa la wax mais la njaboot. Mhm. yow tey sa kër mënoo maîtriser ñëpp. waaye yow doxalin doxalin boo xam ne njaboot gi. bis bu nekk dina mun jël exemple si yow président de la république nu toog man Abdoulaye Wade je pense que xam nga dafa am dama mus a toog déglu benn kilifa mu ne muy waaj dem màkk mu ne waa ji ñaanal ma su ma demee waa ji ne ko ah imam bu toll ne yow kilifoo man ma lay ñaanal mu ne ko wax ma loo bëgg ma ñaanal mu ne ko mujj bu rafet dafa naa nag war na toll na jamono boo xam ne war na delloo si xelam am mujj bu rafet yàlla teraanga bu nekk defal na ko mu nangu yàlla defal na ko bàyyi ñeneen mu nangu yàlla tey su ko tegee leneen bàyyi ñeneen war na nangu waaye ñoom dañoo bëgg a wax ne ñoom li nga xam ne yàlla li ngeen tuddee ne yàlla ko teg yàlla teg ko président Abdoulaye Wade président Macky Sall moo ko teg jàpp doomam

mais tay mun président de la République mi ngi pale ba di liggéey di dox suba ak ngoon ak bëccëg du nelaw guddi nelaw bëccëg ngi Sénégal jëm kanam ñu ne lay kok mo jàpp suñu justice fon légui lan la. Oustaz Aboubacry Faye. alhamdulilah. li mu wax. dama cee dégg ñaari jangal bismillah da nga dané lay sank ci ay bi nga xamanteni yàlla ne wa man ahsanu qawlan mimman daa ila allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. ndax. وقال انني من المسلمين بي داي نيك تي لام نيك ولا في ورا اندك جيغ كو غوندي جيرجيف ا آه، سانك داما واخ لولو سما انتروديسيون ما نيو تي نياارل بي موي لي يوننت بي واخ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم خامني لي ماي واخ ني دو سماي واخ مي واخو يالا واخو يوننتام تايت دو لي ني واخ رك تي لامن مو يم في mais lu ñuy fas ci xol la mais lu ñuy dund la comme niñ ko dundee woon démb yàlla defal leen teraanga ñu am teraanga àdduna ak àllaaxira ñun ñu ñëw tey bëgg loolu itam foog ñu nangoo jaar fi ñooñu fa ñu jaaroon bu ñu bëggee ñooñu lañu amoon ñu am ko ah. ñu mën a am lool yonte bi alayhi salaatu wasalaam dafay wax ne al jullit bi mm-hmm. waxul jullit de وهو المسلم المسلم موي جوليت بي بمعنى الكلمه لبلي معنى جوليت داجنا تي موم جوليت بي بير موي كيغا خامني دا فاي جمالاتي تي لامنيام دو واخ لو بون دو واخ لو نياو واي ايتام تي لوخوم دي تي لور كين كون موي جوليت بي موي كو خامني موسى فخينا بي موسى نيب ci làmmiñam ci lu muy wax ci lu ñaaw ci lu mu wax ci lu bon waaye fexe na itam loxoom du ci teg kenn lu bon ci loo xam ne dina ko def mm-hmm. li xew ci réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk dund ñun dañuy gaaw a fàtte mm-hmm. xam nga réew mi du Sénégal du tey rek mm-hmm. du 2012 waaye am na lu ko jiitu am na ay xew yu fi doon xew yu demee nii ñooñu seen njaboot bu ñu taxawee woon taxawaay bi du doon demee nii kon nan lañu mun a nangoo ñu jël ay doomu jàmbur di leen tëj di def ci ñoom ñu ñeneen aaye tey tëj suñu njaboot ñu ne du fi amee loolu du diine ci wàllu politique sax du politique du loolu li ñu tuddee égoïsme mooy man rek non non noonu réew li koy dafay indi jàmm mooy ñu fexe ñëpp yem mais est-ce que du li ñu li ñuy tudd li ñu tuddee acharnement maanaam jàpp kenn rek ci ñoom lu ñu waxee tëj ko bàyyi ñeneen ñoo xamante ne jàpp nañ ni tax wala ku ànd ak nguur kenn du la tëj ku ànd ak nguur bi tëj la. réew daal li fay indi jàmm daal mooy justice am maandu te li ñu tuddee al adala al amma mm-hmm. al adala ijtimaiya mm-hmm. mooy tax réew am jàmm mooy tax réew am dal mooy tax réew am kóolute mm-hmm. هذا في الوقت القرآن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون يالدي وحني نيغا خامني دانيو گم يالا te jaxasewuñu seen ngëm googu ak leneen lu dul ngëm te mooy bokkaale jaxasewuñu ñooñu ñoo ñii am sécurité kon sécurité pour mu am ci réew fokk ñu fexe ba loolu law kenn ku ne li mu yelloo ñu jox ko ko ñu bañ a jalkati bañ a tooñ nga baal ma tuuti barke démb maa ngi wax ci sama jàkk mën ne réew pour mu am jàmm fokk ku def lu dul noonu ñu daan ko du ñu tànn ñay def ñu ñii bu ñu amee kàttan ñu bàyyi leen ñii buñ ko ñàkkee ñu teg daan seen kaw lu tax yonent bee ñu jàngal sallallahu alayhi wa dafa am kenn ku bokkoon ci ba bani mahzoum beneen ndaw soo xam ne dafa jalgati woon yonent bi war a teg pen ci kawam ñuy ay mbokkam jub parce que ci yax bu rëy la bokk ne nañ ko tinu ndax ñu bàyyi nañ ko tinu ndax yonent bi bañ a def loolu sallallahu alayhi wa ñu seet nag kan mu war a jàkkaarloog yonent bi ci face bi pour mën a wax ak moom pour mu ña bañ a exécuter loolu yàlla wax def ci waaj ba xel yi daj koo xam ne yonent bi da ko bëgg lool ndax da bëgg ba waajuram bu tudd alxibbi ibnul xibb mooy Usaama ibnu Zayd yonent bi da ko bëggoon bëggoon waajuram ñu dem ci moom wax ko ko Usaama dem ci yonent bi alayhi salaatu salaam dem wax ko ko mais bi mu waxee ba daaneel lu yonente bi wax sallallahu alayhi wa sallam atte boo xam ne yàlla da koo farataal teg ko ci kaw nit ngay dox pour man ma teggi loola waat naa ci yàlla ci la dajale ñépp xutba leen waar leen wan leen ne bokk na ci li yàqal ñi leen jiitu woon ñi alak ñi leen jiitu woon mooy ku néew doole bu defee lu dul noonu ñu teg ko daan ku am doole bu defee lu dul noonu ñu bàyyi ko sama doom waat naa sama doom Fatima bintu Muhammad bu mhm. defoon lu dul noonu dinaa ko teg daal daan ustaz day woy ne euh, dañoo ñoon dinaan attee ci àdduna mhm. ci doon dañ la attee Aboubacar defoon na ko bi mu ñëwee premier xutba am ci lool na waxoon daa fun fii comme xawin fii daay fun fii comme xawin indi xatta axasu lu xaq saa bu ñu gisee yooyu yëpp léegi est-ce que lan mooy ci rôle yéen waxtaankat yéen nga xam yéen yor waxtaan yëpp yeneen ci waxtaan mais dafa mel ne kenn déglu leen dafa mel ne boo de nga a a lajj jëyit lajju ñu dafa mel ne da xaw a lajj parce que booba léegi yéen a ngi wax te nit ñaa ngi continuer liñ gëmoon da ngeen continuer lañ daan def ba léegi même discours ne fi am ñëwee sax ci wàllu gi léegi discours yooyu ñàkk fi bi waaw bu amee coow mhm. ñaar bu ñu wuutee li ñu alquran jàngal mooy kilifa yi nañ jug ñi am kaddu nañ jug yàlla dafa wax ci baal ma maamuur wa in taifataani min almuminina iqtatalu fa aslixu baynahuma فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينكم فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ما شاء الله صوت حجرات يلا نينا نيار ني بوك تي جوليت ني بو ني ريانتي باي خيخو فاصلحوا بينكما بالعد نعم كورل بو جوب te ñi ci gën a placé mooy nit kilifa diine yi kon nañ leen woo ñu toog koo xam ne boo ko woowee mu seet si la boo ko woowul mu seet si la occasionnel bi mu ñëwee nga toog ak moom wax ak moom won ko li am boo leen dégloo ñoom ñaar di nga ci xam ku ci nekkul ci dégg bu boobaa nga wañ loxoom ne nekkoo ci dégg loolu la alxuraan wax fa in bagat ihdahuma ala al fa qaatilu allati tabgi xata tafiia ila amrillah li moy li deug loolu bu doxo rek jàmm am ci rew kon ñaar ñi bu fekke dañoo werante dañoo wuté yegg bay yëkkan yëggante ay ay yet. bay bëgg a wala ñu yegg ci loolu. bu ñu kilifa yi woon di wo ki rek ñu tok rek. problème bi réglé. bo leen kilifa yi woon problème bi réglé. defe na naxal. ko alcorane la parce que limu jéxalé wax ji. moy innamal mu'minuna ikhwa فأصلحوا بينهما فأصلحوا بين أه. أخويكم أه. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون دونك كليفة دينية يوارا يوين ديغنتي بي نيجي وقت الاستفتاتري يا خمن تري بعدين ينتظر جهاز الخلاء من نيجي وقت 88 628 111 111 88 628 111 أبو يا إمام يا ومن يا خمن تري يا فيتي تشينغوري نح tànki jàmm ji yéen yéen a war a yëkkati jéego yu ko dox. mais imam am nga dama bëgg nu classe nu leeral askan wi benn mbir mooy xuloo am ndax président Macky Sall amul problème ak président Abdoulaye Wade tool yi si benn boor lay jóge ñu hmm. jël di wax sa waajur lu ñaaw yow doo ko nangu man duma ko nangu keneen fii ku fi toog du ko nangu ñu hmm. jël di teg sa dellu ban

Euh, waaw waaw dafa am encore siyaar bu baax euh, sama sama sang sama. kookal la waaye mu mu dugal ñu dig ngeen dugal dafa am moom lu ci seere ci yonant bi. Mhm. bi mu daanee ma ne kon ba mu kon da ngaa léegi li nga xam ne nii moom la ñuy àttee moom moom la yoon àttee ma teggi ko man jaral na ma Fatima sama moom mii ma sama moom mii su ko defan jaral na ma mhm. faat ko loolu tax kilifa yi duñ ci dig. Mhm. si si ñëwee rek nañ bàyyi si si eggal. li ñu gàttal lépp lépp lépp benn benn histoire dong la ñaari politiciens lañ. Mhm. l'islam l'islam moom moom mënut a wane dugg waaye l'islam toujours à côté lay mën a féete ci politique parce que lan leen li àtte bu leen neexul ñëwee si si bu leen neexee ñëwee si si moom. Mhm. moo tax il faut il faut il dina dinañ il faut ñu dinañ ñuy wax li ñuy wax lañ di dégg. ndax duñ ko nangu. ki yàlla ki ki nga xam ne àdduna ko tax a jóg ak ki yàlla ki ki yàlla tax a jóg. Mm-hmm. buñ bokk ak prix bi duñ man a euh, bokk ak fee. Aliou Aliou Saare wax chef des divorcés baax sama oustaz Aliou baax baax tey jégalu la xam naa ne. Mm-hmm. ba wax ji sax ni ma ko bëggee xam naa ne doo <laughs> mënu ko teeloo mais li ma leen di xamal daal mooy kilifa diine yi moom. politiciens yi seen njëriñ rek la ñu bu dee leneen leneen leneen njëriñu réew mi. Mm-hmm. mu ñoom alhamdulilah jërëjëf mu ngi ci moom benn la. wallaay jërëjëf ñaar ñaar ñuy waxante la ku yëq sa morom ko di morom. Mm-hmm. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah Abu mu wax wax ju am solo. mu ne li Oustaz Aboubacry Faye wax. ne kilifa diine ñu jóg jot na woo ñaari kuréel yi. Il ak a ndax Sénégal dafa nekk dëkk boo dafa am chance boo xam ku nekk am na fu mu féete ku nekk am na fu mu féete kon ba tey téléspectateur bëgg def intervention mën nga 88 628 71 71 mais est-ce que kilifa yi ni di dox si dox boobu hmm. kenn xamul ñu ngi ci ñu ngi ci ñu Sénégal il faut maîtriser lu mais dafa président Abdoulaye kilifa diine yi wax day président Macky Sall Macky Sall moo jëfewul ndigal gi. mais non xam nga. yeneen président yo xam ne ci yeneen rew wax day président Macky Sall mo bañ. yow xam nga lu président Macky Sall euh, Macky euh, Abdoulaye Wade wax nga rapide mais est-ce que lolo am kenn xamul xam nga fi lu am solo moy jité rew responsabilité la. responsabilité bu mag. tay ku togon fi nu tek le place Macky Sall est-ce que lu mu mën ben fan dinañ ko mën. yàlla rek xam mi ngi si tëddee guddi mi ngi xalaat nu muy def pour jafe-jafe askanam seen courant du coupé te loolu moo am nu xool ni ñuy wàññee essence bi ndax nit yi di mën di doxi seen soxla mun du coono wàññeeku si ñoom loolu moo am nu xool nooy dëkkee sa luwaas wàññeeku ndax nga mën am foo économiser dem daf feneen loolu moo am ak feneen feneen feneen donc xam nga lu am solo mooy il faut nit yi tamit wax dëgg

mënul naax saay c'est pas possible man suma ma toogee déglu oustaz ñuy wax di fi wax ci yàlla man tey suma ma amoon lu ma naar sax suma ma génnee naa ko bàyyi ndax mu am ay kilifa ay diine donc lu am solo mooy noonu bokk ndey bokk bàyyi président de la république loolu lay woote lu mu bëgg mooy suñ dëkk jugee fii egg feneen fu ko daw lu mu bëgg mooy dëkk bi ñëpp nekk si jàmm ndax ku yéeneen suñu yéenentewul jàmm lu nu mënti daf si effort day day naasaay donc lu am solo mooy 23 juin maa ngi lancé appel homme politique yi média yi ñëpp ñu xool responsabilité réew mi ndax réew mi tey benn euh, dànku nit mënul indi jaxas-jaxase si réew mi réew mi yamul Dakar Mhm. yemul ay nit ñi ngi ci all bi seen jafé jafé moy nan la ñu mun pour dugal seen bi dara nan la ñu mun pour yar seen dom nan la ñu mun pour euh, seen dundu yokku mhm. donc lu am solo moy le président Macky Sall Ablaye Wade mhm. ne delloo si xelam té xamné aduna yemul si ben fan nonu and bokk ndey bokk bay ni ngi féké kilifa diine yi ni ngi ci nu gën leen ñaax nu gën ci nek waye nu wo Abdoulaye Wade teg ko si yoon ndax président Macky Sall dëgg na yàlla dëgg yàlla. am na ci ligne bi. Mm-hmm. mbokk asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. soxna si doo yokk sa baat tuuti rek kàddu ma ne bul déglu télé bi waxal direct rek ñu dégg la. am nañ problème

maanaam dafa am bëgg-bëggam te jàpp ne da acharné ci kaw doomam ñu bàyyi doomam ngir stabilité réew mi le 23 wala loolu tax wala loolu tere jàpp bi jàpp doomam taxul réew mën a mën bañ am stabilité. waaw xam nga bu ñu nee jàmm moom fokk ñu fàttaliku lan mooy jàmm. jàmm tur la bu yàlla tànnal boppam tuddee ko boppam. ko ba demee ci alquran saar wi nga xam ne moo gën a bari turu yàlla ci la baat boobu jib te muy suratul xashr aaya 23 boo ci demee dina fekk yàlla di wax ne huwa allahu la ilaha illa huwa aalimu alxaybi walshahada huwa arrahman arrahim huwa allahu alladi la ilaha illa huwa almaliku alquddus lu ci topp salaam asalaam asalaam mooy jàmm mm-hmm. tur la bu yàlla tànnal boppam tuddee ko bopp mm-hmm. ba mu def ba mu sottalee foofa mu jël lislaam mu jógee ko ci jàmm booy mm-hmm. diine bi nga xam ne ci lañ nekk mooy diine jàmm jël jullit bi ñu tuddee ko muslim mooy ku jël boppam askanale ko ci yàlla waaye jël boppam jébbal ko yàlla lépp lu yàlla dogal ci moom mu nangu ko anda ak xol bu sedd hmm. te xam ne loolooy li gën ci moom ala kulli tax na ba pour sa mbokkum julli sax amoo sañ-sañ ne ko na nga def hmm. fokk nga jiital jàmm jooju ñaanal ko jàmm ak yërmande ak barke hmm. loolu mooy li leen jokkale loolu mooy liy dox sa diggante ak sa mbokkum julli tout à fait kon ne sa boroom mu ngi ko jàmm la ngay askano mooy yow ñu tuddee la muslim muslim mooy lan mooy kuy jàmmalaate koo xam ne bu xëyee jàmm lay dox moom lay wax fu mu jógee bàyyi fa jàmm fu mu nekk nekk fa jàmm fu mu jëm yóbbu fa jàmm loolu la ñu séentu ci réew mi rawatina li ñu dégmal te mooy le vingt le vingt trois ak yeneen bés yi ñu ni neen la xamante nañu te it lii du benn bés na ci kii bi salaamaaleykum waaw kan? soxna si dooñu baax rek nga iya, nga wàññi kan télé bi te nga yokk sa baax kàddu tuuti allo allo waaw ñu ngi lay dégg waaw bismillah sëñ bi maa ngi nuyu ñu toog ci plateau bi waaw yëkkil kàddu bi tuuti maa ngi nuyu ñu toog ci plateau bi waaw bëggoon intervenir tuuti rek ci thème bi ndax thème bi ngeen indi tey mm-hmm. nah, eh, dafa am solo lool ñu mm-hmm. toll ci dëkk bi ci moment yu difficile moment boo xam ne dafa laaj stabilité lool. yëkkati kàddu bu tuuti rek soxna si. moment boo xam ne dëkk bi dafa laaj stabilité lool. stabilité ñu gis ne bu ci kilifa yi waxul. Mm-hmm. taxawuñu ci. Mm-hmm. dëkk bi dina am nu mu demee te du arrangé ñi nga xam ne ñoo ne ci nguur gi rawatina ñi ne ci kujje politique bi ndax nag dëkk kër sax day am kilifa rawatina dëkk. dëkk nag bu demee ba ñàkk stabilité yaakaar naa njiitu réew. nga xam ne yaay kilifay dëkk bi di kilifay askan bi am na ñoo war a taxawee taxawaay bi mooy nga génn jàkkaarloog sa askan dalal seen xel ndax fii kat fi tool nii xelu sénégalais yépp kenn dalatul kenn ñemeetul dem kenn ñemeetul génn ndax chaque jour yaa ngi xalaat situation bu am ci mbedd bi te nag waxtaan wax dëgg ca la suñu kilifa di président Macky Sall dafa war a génn dalal xel yi dañu ne séparation des pouvoirs mais ñun gisuñu loolu ndax ñu dañoo gis acharnement ci benn nit muy kan doomu ancien président de la république dëgg moo neex yàlla te moo neex jullit yi te dañ koo war di wax président ci Sall bu doon dafa bàyyi justice bi def liggéeyam am na sorti yoo xam ne ñoom duñ ko def ci télé bi ñoom it ay ñoñam muy waa APR ba tax riposte bi di jógee ci opposants yi opposants yi kenn rek la fi muy waa PDS ñu ngi leen di ñaan ngir yàlla ak yonante bi dëkk bi jàmm lañ ci bëgg bu la 23 wee incha allahu rabbi verdict ba euh, kii bi di génnee juge ba di génnee na doon loo xam ne juge ba dafay prêter serment bu leen alalu àdduna jaral ñuy wàcc seen serment buñ ko waree teg ci yoon nañ ko teg ci yoon waaye nag ak nañ koy tegee ci yoon ndax nag tuumaal nit te amoo preuve suñu diine nangu ko lu dul diine nangu ko ay preuve lañ leen laaj bés buñ ko tëjee rek jox lii lii euh, sama sama question bi ndaw si ñëwaat na ci sa alhamdulilah léegi ndax nee mbir mi bu mu nekk mbiru acharnement ci kenn. warta nekk loolu. dëkk day am kilifa kër day am kilifa waxuma laa dëkk. bu bés boobu jotee ki nga xamante ni mooy joxe verdict bi. dafa waton ne lépp lu muy àtte deug lay doon. dëgg boobaa bu alal tax bu dara tax mu àtte ci lu deug inshallah allah lol moy li jaadu ndax moy tax jam am ci ko souf gis nga njëngate fu mu am. euh Ibnu Taymiya al Islam Ibnu Taymiya fay wax ne gannaaw bu mu sukkandikoo ci alquran ak ci sunna bi yàlla di wax ne wa a'dilu wa a'dilu inna allah yuhibbul muqsitin mandu len ndax yàlla dafa bëgg mandu ñi mandu kon mandu ci wax mandu ci atte fexe ba li ngay atte nga tek ko ci yoon tek ko ci lu wóor. bu sét lu neex diwul bu sét lu naqari diw. lolu moy li jaadu. cheikhul islam da fay wax ne. inna allah yansuru dawlata al aadila walaw kaana kaafira. wala yansuru dawlata zalima walaw kaana muslima. al mulku yaduumu maa al adli wala yadumu ma al kufri wa zulm dafay wax ne yàlla day jàppale réew mu tegu ci maandute donte li ko jiite réew ma ab yéefar la waaye du jàppale mukk réew mu tegu ci tooñ ak jalgati donte li ko ko ab jullit la nguur mu ngi sax di yàgg lool ci maandu waaye du sax mukk du yàgg mukk ci tooñ ak jalgati ak weddi yàlla abu waa ji nga xam ndaw si nga xam ne woote na léegi dafa wax yoo xamante ne daf leen a interpellé ndax nee na jàmm kat ki yor nguur moo koy wut nam koy wutee mooy oustaz Aboubacrin Faye daane léegi ci kàddoom <coughs> réew bu ki ko yor bu ko yoree ci màndu yàlla dana ànd ak ñoom jàppal leen donte ko ko yor kéef yéeféer la bu ko yoree ci caay-caay ak lu dul dëgg yàlla dana seetaan réew ma donte ka ka jiite jullit la

en tant que chef de l'État mu jël teg lu dul lu bon si kawam mhm. su ko neexoon mu ne man diw tooñ na ma non c'est différent ça n'a rien à voir avec la non dafal monsieur le chroniqueur man lu ko bu baax non article 80, article article article sur constitution la mm-hmm. constitution dont nous fekk ko mm-hmm. yow tey fi nga toog nii su ma der dam suba yobuma ma tribunal ne ma man ki daf ma togn na nga ko mu justifier wu. Mhm. mais nous tek yow en tant que jiitu rew parce que il faut nous respecter le président de la république il faut nous respecter institutions institution tey le président de la république fekkee tay ku neex nga juk rek ni diw di nit dara diw nit dara mais pon bien boo noonu jël république bi tas ko amatul njëriñ mhm. ndax président de la république suñ ko fi tegee moy ko xam ñepp kay jox cër ndax moy jiitee sénégalais yépp dafa ànd ak dafa war a ànd mu koy respecter muy ànd ak dal bo xam ne dina mën jël jafé jafé askan nit yëkkati ko di ko donc motax mané sank ne sànq wax nako moy 23 mars président de la République nitu jamm ken musul tok fi tay wax président de la République wax na lu ñaaw jëmele ko ci nit mu ngi rek waaye nak am ful ak fayda bo xam ne si lu mu yare institution bi ku daf lu warul daf di nga dajeeg yoon sa kanam. yoon laa wax de. sànq mhm. moo war woote waxtaan. mais mais woote waxtaan xam nga waxtaan soo koy woo da koy woo si ko. Mhm. mais mais xeex ak. mais xam nga monsieur le chroniqueur dafa am benn mbir bu am solo. Mhm. Macky président man du président Yo, du président le président de tous les Sénégalais il a la responsabilité a am responsabilité vous mag mooy lan aar doomu aadama de ci ñu fi ak ñu fi ñu fi donc aujourd'hui la police ak gendarmerie seen rôle la ñu am taxawaay bo xamné ku daf lo xam dafa nara

xam nga tey président de la république chantier yu mu entamé liggéey bu am solo bu muy def fu mu bëgg Sénégal egg fa fu mu bëgg ceeb egg fa fu mu bëgg courant egg fa fu mu bëgg ndox egg fa si amul jàmm mënu ko am kon nag yow soo bëggee tabax sa kër te jàmm amul sa koñ kër ga du yegg kon nag jàmm rek na ñuy ñaan jàmm ji a nekk loo xamante ni dañ koy wax rek jàmm ñu bëgg mais bu jëf bi ñëwee wuutee wax ci zone bi 23 juin gars yi dañoon mais dañ waxoon am na loi bu ñu boo xam ne jaarul yoon. waraloon ay nit ñu wàcc mbedd mhm. ci procès Karim Wade bi man awma si benn tiitaange xam nga lu tax awma si benn tiitaange ndax Sénégal mi ngi tegu si yoon suñuy institution mi ngi dox xam nga il faut nit yi xam nga tey Karim affaire Karim wadd bi volonté po volonté populaire la woon président Macky Sall boobu ñu koy fal nit yi danoo ñëw ne. ku maaleykum salaam nangeen def. ñu ngi sant yàlla kooku. waaw maa ngi tudd uh, Aliou Diallo dama bëggoon indi suma contribution tuuti si bu ma la permettez. bismillah. maa ngi rafetlu tamit uh, kilifa yi fa toog. Mhm. Uh, diine bi ak kujje politique bi mais kii toog ak foofu nguur gi daal dama àndul ak moom tuuti ci ci ci li mu wax. Mhm. maa ngi ànd ak bu baax a baax a baax euh, chroniqueur bi le fait que mu mu reprendre muy euh, wax ci article quatre si vous le permettez ñaari minute rek. bismillah alors euh, tey jii position nguur gi dafa war a nekk position boo xam ne day dalal xel tey jii hmm. aujourd'hui en midi médité ku demoon biir Ndakaaru dem place de l'indépendance da ngay tiit y a une forte mobilisation de l'armée waxuma sax police gendarmerie armée ci dagg garab yi di kii yooyu yëpp euh, euh, man daal su ma sañoon tey euh, ki toogal foofu nguur gi na wax pratiquement une ou deux minutes mais ki toog islam bi diine bi mu wax parce que actuellement ñu nekk biir Ndakaaru ñu fa gën a bëri c'est des gens yoo xam ne ngeen baal ma tuuti c'est des ambulants yoo xam ne ñoom islam bi moo leen gën a ëppal doole da ngay gis ay bayfaal da ngay gis ay intellectuels mais aujourd'hui Sénégal bu ñu toll nii tey jii ils ont plus besoin des islamistes, des érudits en, en, religion que, que nos politiques. Euh, loolu daal laa amoon ci contribution bu ndaw bu may wax bu baax. Euh, jërëjëf oustaz euh, benn question rek boo boo ma ko mayee ma ma posé le est-ce que tey jii islam yéen ñi ak ñoom Iran Ndao ak ñoom Alioune Sall mun marcher pacifiquement pour jël loxo APR jox loxo PDS ñoom ñëpp ñu nuyoo nga xam ne tey islam moom marché muy ànd ak muy euh, église muy catholique muy chrétien ngeen marche pacifiquement au nom de la paix au nom de la de la paix au Sénégal. Mhm. te mbaal ma bu baax a baax a baax. jërëjëf jërëjëf jërëjëf naa dégg nga laaj bi. waaw alhamdulilah mu ne question bi mu lay laaj. Mhm. mooy ndax oustaz yi waruñu jóg. Mhm. marche pacifiquement dom fi ñuy daje daje fa ak APR ak PDS ñu teel leen joxante ay loxo. alhamdulilah loolu de bu mënoon a am yaa xabada dalik mhm. ndax loolu la yàlla santaane euh, wuute mënta ñàkk waaye bu amee na am ay ñu am xel ñoo xam ne ñoom ñooy jéem a taxaw pour yéwénal loolu mhm. jàngoon naa laayeb ji léegi waxtu bi mayewul pour ma jëm koo tekki pour ñu jéem a dégg mhm. réew mu ne fokk mu am ay kuréel yu fa taxaw wal takkum minkum umma la yàlla waxoon yaduuna ilal xayr wa ya'muruuna bil naw na yanhawna 'anil munkar foog mu am benn mbootaay mboona kuréel ci ñu bokk ci yéen minkum mhm. ñu bokk ci yéen ñoo xam ne dañuy do woote ci lu baax mhm. di digle lu baax te di ko def mhm. mais du tere lu bon te di ko bàyyi kon imaam yi waroon nañoo mobiliser wu ustaas yi waroon nañoo mobiliser wu boroom xam-xam yi waroon nañoo mobiliser wu jéem a taxaw pour woo ñaari camp yi nga xam ne ñoom ñoo am problème. Mhm. pour ñu fexe ba ñu daje ci digg. ci ligne bi ngir rek jàmm benn leen. salaamaaleykum. waaleykum salaam. Euh, suñu baax yi ziar nañ leen. ñu delloo ziar euh, kooku sant di gërëm man la benn waaye bi ñu wax Malick Sall. ah. benn euh, taalibe la bi ñu wax Malick Sall. maalik bismillah. waaw maa ngi leen di ziar te rafetlu seen waxtaan wi. Mhm. waaye itam am na loo xamante ne aussi. Euh, kilifa gi sol naa fa bu xonq bi ak yow fii yéen ñu ngi di sant leen gërëm parce que ci diine ak ci lépp ngeen ko teg te it yaakaar nañ ni télé bi télé diine la diine rek lañ ci war a euh, jëfandikoo be am déggoo. Mhm. parce que lu dul diine rek neen la. Mhm. muy politicien beeg yeneen nag yooyu yëpp day jeex si àdduna la te yàlla li fi waxoon teg ko fi ba dañu mu ngi fi te du fi mos a jógee ñun ñoo fi jóg rek waaye lu fi jóg. Mhm. ba nga xamante ni waa ji nekk ci sama xalaat bu gàtt dafa la nekk am na fenn foo xam ne tamit dañuy xaw a jaaxle tuuti am na fenn foo xamante aussi tamit dañ naan dëgg la parce que président man nii wallahi def naa lu mat treize pays africains Europe ay ñetti pays musuma dégg ci àdduna li ñuy wax président Sénégal mooy ci jamono Ablaye Wade fii ñu koy wax fii ñu koy wax président président dafa am loo xam yéen ñi toog foofu yëpp yaakaar naa nationalité sénégalais ngeen yor ba nga xamante tey ji boo génnoon ci dëkk bi fenn ñuy wax lenn sa président day mel ni la ci yow foofee ngeen koy xoole gan yi fi nekk li ñuy wax ak li ñuy def jëf ci ñun li ñuy wax suñu président tax nañ ko xool leen gan yi fi nekk lu ñu wax ñu wax yéen sénégalais nangam parce que ñoo def ñun ñoo jël suñu président def ko comme benn xob boo xam dañ koy fu nekk ñu ban fa nekk yóbbu ko benn ancien président bu ñëwee yàlla def na mu def la fay def ñun ñu rafetlu yenn yi ñenn ñi rafetlu yenn yi moo jëlee ko fi ñeneen ñu fi jaaroon pare yi muy Abdou Diouf muy Senghor mu keneen waaye nag ñun tam mag ñi fi nekk nañu xam ni ay gone yu ndaw leen déglu man amaguma 32 ans mais dox naa mais tam am na loo xamante ni dafa rafetul te mag ñu ut tamit ñu ngi seetaan parce que mag mu nekk yaa ngi yaa ngi yaa ngi yenn saa yaa ngi suul loo xamante ni. ëllëg sa kaw la jëm wala sa njaboot te it nañu xool day wax gone yi nga xam ne aussi tamit yenn saa ñu ngi bàyyi yenn journaliste yi ak yenn kii ñu nekk ci presse bi guddi ak bëccëg suba ak ngoon ñu wax fii waxee parce que ku ci nekk am nga foofar ñëpp yàlla mooy def loolu ci àdduna waaye nag buñ la tegee ci télé dama ci maandu maandu gi mooy ngay wax loo xam ne dana jëriñ Sénégalais yi man loolu rek ñu yitteel boole ci politiciens ñu bàyyi doomu jàmbur yiy jël di leen xëtal ci nit ñi ndax ëllëg ñoom seen doom yi doo ci gis kenn kenn nga ci gisul sa doomu mu jiite te keroog bu ñu képp kuy def marche te bëgg barke alxuraan dama leen di ñaan sénégalais ñu xam seen doom yi képp ku ñu jiital ñoom nañ jiital seen doom yi ba pare si ñeneen ñi seen doom yi ñëw ñu baadoole yoruñu dara ñu xulawuñu amuñu kenn koo xamante ni nekk na ci jinin woo lañ la police lu du ñoom ñooy jox cinq mille dix mille woo la te seen i doom yi duñ ñëw guddi gi nii boo ci génnee ci boîte yi fii wallahi seen doom yi li ñuy dawal ak li ñu yor ñu yor ñu ko ñu ñu leen di xeexal moytu leen tey nañu rafetal Sénégal tey wax dëgg tey jàll ci dëgg di def dëgg. jërëjëf ngeen baal ma jërëjëf jërëjëf tabaarakallaahu wax ji mu wax am na solo am na solo eh. defe naa Abou dafa la interpellé directement ci sa kàddu parce que bu muy wax kàddu bi dégg ma dégg ko baax daf ma xaw a échappé tuuti waaw euh, sa position mm-hmm. la bëgg nga leeral ko ndax nee na yenn saay dina ànd ak yow yenn saay du ànd ak du ànd ak yow moom aussi àggalul foofu kàddoom ak xam nga man benn position laa am imam mm-hmm. mooy dama bëgg réew mi mu ànd ak daal que gis nga Sénégal doo toll foo xam ne danoo soxla am yokkute mm-hmm. am avancement te xam nga fii su ñuy wax nii réew mi jàmm noonu woo ñaari camp nu waxtaan ku nekk bitim réew dina dafa ne Sénégal a ngi toj Sénégal amul benn problème mu nekk nit yi ñu ngi doxi seen soxla soo génnee nit yaa ngi dem di dugg di génn di ak administration baa ngi dox. mais mais xam nga xam nga gis nga waxtaan xam nga fan lay tàmbale man tey mënuma la fekk sa kër imaam mu am ku bokk si kër gi yow ngay kilifa si kër gi mu am ku nekk si kër gi di la tong di la tooñ di la saag di la wax wax bu ñaaw. mais la ah imam ñëwal kat nu boy la ngeen tok waxtan déedéet président de la république non ko jox ceureum njiitu rew la nekkul ko xamne rek day dox ni di non c'est le président de la république non ko jox ceureum moy lan nanu xool lo xamne non ko bokk nu ànd liguey man sama position ben la nanu am jam yenente jam waxante jam nit nak man tey Karim Wade tey fekkoon sama sagul tay tay tay mu ñibi këram ndax man prison bu mu fa nekk man ban njëriñ la ma amal mais nag yàlla mooy teg situation si nit noonu ko nangu maa ngi ñaan xëy na 23 mars maa ngi ñaan nu bàyyi ko mu ñibbi mais nag lu am solo mooy nunu ànd ñu ñëpp comme nu ko oustaz waxee ñëpp wax delloo suñ xel te xam ne réew mi suñu réew la euh, euh, euh, am na ay jafe-jafe yoo xam ne il faut ñu dindi ko fi am lekk bu doy di naan di avancer di yokk

Mhm. Oustaz Aboubacry waaw alhamdulilah man man ci en tout cas man li ma mën a wax mooy. am na auditeur xam naa mooy ne suñu dernier auditeur na waxtu bi def na bi kàddu gi tuuti. waaw na def sëñ bi. bisimilah soxna si wàññil kàddu gi wàññil télé bi nga yëkkati kàddu gi tuuti. waaw télé bi wàññi naa ko ma ni def. dégguñu la de. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw ñu ngi leen di gërëm di leen sant. di rafetlu vraiment thème bi thème bi am na solo. Mhm. ndax bu ngeen ne la stabilité du pays rek euh, dañ ci war a wax ndax dëkk bi jaxasoo na jaxasoo boo xamante ni jigéen ñi sax da dul génn. Mhm. ndax fu mu toll nii ñemetuñu sax génn. yëkkatiwaatal kàddu gi tuuti rek nga baal ñu. fu mu toll nii ñun jigéen ñi ñemetuñu génn. Mhm. ndax dañuy ragal. njaboot yaa ngi wax seen doom yi le vingt trois bu kenn génn. Hmm. ndax dëkk bi day day jaxasoo. Hmm. ndax ay menaces lu nu dégg ndax dañu ne la vingt trois bu fekkee ni Karim jàpp nañ ko dëkk bi day jaxasoo. Hmm. ñun ñu foog ni dëkk bi xanaa dëkku yoon la. waaw ah, ah ñun de en tant jigéen ñu ngi ñaan nguur gi ak kujje politique bi. ñu delloo si seen xel mm-hmm. xam ni senegal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar ñu fàttali li euh, maam Abdoul Aziz Dabakh doon wax ci dëkk bi jaxasoo moo tax euh, dañu war a fu nu toll di xalaat suñu góor yu baax yooyu mm-hmm. suñu xubbul samaan yooyu dañ leen war a di fàttali ko bu mm-hmm. réew mi tolloo fii war nañu tàtte xol yi ndax politique warul tax dëkk bi nekk ci ay tolof tolof dëkk bi metti na dañu war a dimbale xool naka la ñuy suñu doom yi di liggéeyee mm-hmm. xool naka la ñuy wàññee dund bi xool naka la ñuy def pour éducation vraiment ñun ñun ñun loolu loolu en tant que jigéen daf xamuñu fu koy jooy xamuñu fu koy jooyee waaw léegi nag ñu ngi ñaan comme Macky Sall moom mooy le président et c'est le président de tous les Sénégalais ah nanu yërëm ñun jigéen ñi nanu yërëm dalal suñu xel wax ak ñun Karim bu fekkee liñ koy wax li liñ koy waxal moo yoon def li mu war a def bu fekkee du moom mais ñu bàyyi ko yoo dëkk euh, defe naa waxtu bi dab nañu xanaa. dana métti trop nag waaye ñu ñu ñu wax nga nga tàggoo waale en tout daal euh, li may wax rek mooy. Mhm. Sénégal moom dëkku jàmm la ku fi jëm leneen it ci sa kaw lay këpp. Mhm. ku yóbbu rek fexe di dox jàmm di ko wax. Mhm. moom la yàlla santaane moom la diine santaane. yàlla subhaanahu wa dafay wax ci alquran uqulu linnaasi husna booy wax ak nit ñi waxal ak ñoom wax ju jub wax ju responsable bul saaga bul xaste bul ŋàññi kenn bul jéggi kenn di jam daram wala ñu jam ay a lii moom buñ ko dundoon ci dëkk bi rek mhm. loolu kenn ku ne ñu jox ko xàqam mhm. kii président mu yëg ne président la ñi nga xam ne ay citoyen la ñu xam ne kii kat institution la bul xool en tant que ni mun tuuti bul xool ni xale la waaye institution ya ñu jox ko gëddaam ñeneen ñi kenn ku ne ñu jox la li nga yellool lii mooy li nga xam ne mooy indi jàmm ci réew mooy indi dal ci réew mooy indi stabilité mooy indi sécurité kon ñu ngi ñaan yàlla yal yàlla def jàmm ci réew mi yal na fi yàlla def jàmm ngeen baal ñu asalaamaaleykum wa rahmatulah ah, waaw sa kàddu eh, yaay maam bon di di rafetlu ñu fi jël kàddu yëpp di rafet rafetlu vraiment intervention <coughs> oustaz man amna tay tey ba bok ak moom plateau li day dalal xel mhm. euh, di gërëm ce chroniqueur di la gërëm di tecc rek ni ni ah, euh, ngi ñaan jàmm yag si rew ni mhm. parce que sunu njit président de la république yalla ko fi tek mo xam kañ la ko fi jëlé mhm. yalla lu mu sopp ci jàmm moy am yërmande amna ko ci ay population ndax munoo jité té do am yërmande waaye tam ñu ñaan tam ñu fété souf nu xam ne njiit da nga koy jox cër suñu boolee yooyu yëpp nu yéenente jàmm ndax soxna si wax na ko lu nekk suñu kanam diis na yaasu na nit nag kilifa doo ko jiital ba pare pour muy pour mu yenn li diis ngay jël di ko si yokkal lu leen mhm. nag ni ngi ñaan président de la république jàmm am ñu nekk si biir kaso yi yàlla jàppale leen ñu dellu seen njaboot ah ñu jiite réew mi yàlla jàppale leen seen yéene si réew mu egg yow nu lay ñaanal baax macha allah donc euh, yàlla na yàlla yokk yitte yokk yéene yëpp incha allah. Habib kàddu responsable lañu woo lañu woo kilifa yi ak jàmm. melekat jaamu yooyu ci président Macky Sall lañ ko gën a séntu. incha allah mu dox ko pour jàmm Sénégal réew mu stable ñun ñëpp mën a dund ci jàmm ndax ñi fi woote ñëpp woy na ak tiit ak jaaxle goo xam ne am nañ ko ci le 23 mars. Mm-hmm. ñuy ñaan ñi ko nit ñi di yaakaar mbañ a demee noonu. Sénégal am jàmm amiin si gagné euh, bu Karim euh, setee ñu génnee ko waaye bu taxee. ci def ci moom li war ci incha allah asalaamaaleykum jërëjëf euh, Oustaz Aboubacry jërëjëf Abou Mbaye conseiller ministère de la pêche jërëjëf suma chroniqueur euh, suma chroniqueur bi Habib Seye euh, li ma ciy tëj li may tëje mooy ñaanal téléspectateurs yi xamal leen ne fi sama mbokk yëpp jaar fa jaar Sénégal réewu jàmm la. jàmm allah waaye jàmm ji nañ ci dox nañ ci wax. saxiir maa ngi ab maa ngi woo xalif général des Mourides maa ngi woo xalif général des Tidiane Layène Khadre Niassène ñoom ñëpp am nañu responsabilité xam nañ ko ñu ngi ciy dox. Mm-hmm. waaye ñu ngi leen di ñaan lépp lu ñu mën a fexe ba yokk ko. ci réew mi am jàmm le 23 ñu ngi leen koy ñaan seen njaboot seen i doom yi tiit njaboot gi jaaxle ñu ngi leen tàllal loxo. ci dara di leen ñaan ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla may ñu jàmm. jàmm kii ne woon ci caméra bi ma jàkkaar lool mooy Pape Samb euh, mooy papa bi ma féete càmmoñ Pape Samb ci régi bi Alassane seen ki nga xamante ni nag moo nekk ci wàllu production euh, Tidiane Diop ak ñi mu bokkal liggéey bi yëpp. hada wa billahi tawfiq wastaghfirullah li wa lakum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 بما شاء وسع كرسيه السماوات